mbir di nga def waaye nag loolu toujours amul gis sa I know. Balla kontaan na ca kaw ca kanam. Mais Balla li nga seetal mais Balla ku la ñaaw ah barke Serigne Touba gaañ na la ana mbay mbay mais Aliou Sall gars yi raw na ko gars yi ñu sonn gars yi ñu mën a sonn non gàmmu validé mais gàmmu validé vraiment. Bala baray Modou Lamine way aw na baay wax leen baaraay Madu Lamin Madu Lamin baara baara ku la way aw na yàlla yàgg Abdou Aziz bal la ñëw na taalibi sëñ baara bi baara Madu Lamin Kaani benn

sëñ Bass Bara sa waay du ñëw waay keneen sa waay du xaj ci jëm sëñ Bara sa diine doy na xal sëñ Bass Bara sa waay du ñëw waay keneen sa waay du xaj ci jëm feneen man jóg moom nee na jeexal na. yàlla mel sa waay du xàcc dem fa ne. bésu la gëm di gëm la ne. sëñ Bas Bara sa waay du ñëwaay keneen. sa waay du xàcc dem fa ne.